إنك أنت العليم الحكيم مبك جلدي عندك نيون كسنو تفسير القرآن في تي بير زاوية مام شيخ الحاج عمر الفتي رضي الله عنه نجلندي نيو ينيب نجلندي زيار نجلندي بال حق نجلندي بال نجلندي يالله سبحانه وتعالى يالله بولين جيغل تي كاتنم تي مباخم ñu ngi nuyu tamit ñi nga xam ni ñoo ngi topp tafsir bi ci Safina TV di leen jaajëfal bu baax waaye di nuyu ziar Thierno Hamidou ñi nga xam ni yaatal googu yëpp yàlla ngi ko jaarale ci moom mu yëkkati ay moyen pour jullit ñëpp mën di jot ci tafsir bi foo mënti nekk boo jàppee Safina TV rek gis tafsir bi ci àdduna beeg fep yalla na yalla fay ko ci lolu nuyu mbollem ñi nga xamni ñu ngi ak ñun tay nag ñu ngi firi suratu taghabuni at-taghabun limi firi ci arab moy naxante naxante lay firi taxaabun ndax julli nit koo gis bi la yàlla bindee daf lay defal ñaari kër kër ca àjjana ak kër ca safara yéeféer bi nag fexe ne ba jullit bi nax ko dëkke këru àjjanaam dëkke itam këru àjjana yi yéeféer bi loolu moo tax ñu tuddee ko zoratu taxaabuni bisu naxante ba ci biir saar wi itam yàlla daf ciy jàngale kàttanam jàngale ci mën-mënam wala ni moom rek mooy buur moo tax mu ne yusabbixu dana sàbbaal lillaahi ñeel yàlla maa fi samaawaati lépp li nekk ci asamaani juróom-ñaar wa maa fil ardi ak li nekk ci suufu juróom-ñaar bu ne sàbbal yàlla asamaan ak suuf nag mooy yi nit saxal ak jinne ci yàlla ñoom yooyu la ñuy weddi gannaaw bi ñu wiitalee yàlla day wax yàlla amul doom yàlla buur la lu fi nekk yàllaa ko fi def di kañ yàlla rek di ko bàkk lahoo ñeel yàlla almulku nguur mooy moomeel boo xam ne gu dappet la gu sax wala woo ñeel yàlla alhamdu cant wa huwa moom yàlla xadiirun ko am kàttan la ala kulli shay'in ci lépp lu mënti doon amul lu yàlla mënul gis nga buñ la ne woon est yàlla mën na jaarale gileem ci bën bënu puso suñ la laajoon soo ñuy déedéet rek weddi nga yàlla ndax lan inna laa alaa kulli shay'in qadir mu ne woo moom yàlla alladi mooy buur bi nga xam ne xalaqakum bind na leen fa minkum am na ci yéen kaafirun ñoo xam ne dañoo weddi yàlla kaafir xam nga lu muy firi mooy ku suul njekk njekk gi la yàlla defal yépp nga weddi ko loolu mooy kaafir suul njekk moo tax baykat yenn saa ñu naan ko kaafir motax so soo ci borom maqamatul hariri da ngay dégg mu naan la gisna yefer gisna yefer buy julli wala gisna julit bo boo yefer la lan la ci jublu du jullit kaafir dafa baykat bi ni muy soule jiwoom ci souf motax dañ koy tuddé kafir ndax sour gi mu baykat euh jiw ba buur ne huwa alladi mooy buur bi nga xam ne xalaxakum moo leen bind fa minkum am na ci yéen kaafirun ñoo xam ne dañoo suul njekku yàlla gi mooy dañ ko weddi wa minkum am na ci yéen muminun ñoo xam ne dañoo gëm waaye wallaahu yàlla bi ma taamalu na ci lépp lu ngeen di def basirun ko ko gis la yàlla xalaxa moo bind asamawaati asamaani juróom-ñaar wal arda ak suufi juróom-ñaar bil xaqi ci dëgg وصوركم يالا ملالين فأحسن مرافت صوركم سين ملوكان والمسير مجواي لا إليه ما جيم تي يالا يالا مو يعلم مو قم ما في السماوات لنك تي أسمان جروم نيار خم غلار غور غوير والأرض أكسو في جروم ياري يالا رك مو قم لول يب ويعلم يالا مو قم ما تسرون لنين دي نب وما تعلنون أجلين فينيال والله يلا عليم أجي خملة بسات السدور تلي نخ نخ كي سن خلي سات السدور ما يلين كي تسا خل تواخ غوك لين غفاس تسا خل لولو ما نك كاتنام لين مني واخ يفيري وامك مني ألم ياتيكم خنا دكلو لين ين يفيري وامك وين يفيري 2020 naba ullazina solo gaa yi nga xam ni kafaroo weddi woon nañ yàlla min qablu ñi leen jiitu woon xanaa ñi leen jiitu woon te weddi woon yàlla fanu mujje xanaa loolu xamu leen ko ba tax ngeen di weddi ñoom dey fa saaqoo mosoon nañu wa baala amrihim mbasu seen mbir ma mooy mbugalu ko weddi ga ñu weddi woon ci àdduna wa baala amrihim mooy képp ku weddi yàlla wala ngay taxo bàkkaar tuuboo ko balaa ngay de yàlla dana la mbugal fi aduna lolou moy wa bal amrim mbugal momu aduna lay nekk waaye walahum ñeel na leen ëllëg al qiyam azab alim mbugal mu métti te mooy mbugalum safara zalik mbugal moomu yàlla mbugal leen ci àdduna bi annahu naka moom kaana nekkoon na tatihim di leen dikkal rusuluhum seen yonent pour ñu gëm yàlla ñu bañ a gëm faqaalu ña ngay wax abasharu ndax mbindeef yahdunana moo ñuy gindi fa kafaroo ñu weddi ko weddi seen yonent yi wa tawalaw ñu dëdd ba ñu gëm wastaxna allah yàlla ne wastaxna allah yàlla itam doylu na wólis seen ngëm ga wastaxna allah day mel ne gëmuñu ñoom bi ñu gëmul yàlla ni seen ngëm gi sax soxlaatuma ko mooy wastaxna allah yàlla doyloo na wólis seen ngëm ga mu ne wallaahu yàlla ganiyun ku giijal la giijal mooy koo xam ni li nga am kenn xamul nu mu tollu loolu mooy giijal wallahu yàlla ganiyun ku giijal la anil alamina walif mbindeef yi wala nga ne wallahu yàlla ganiyun ku giijal la xamidun ku ñuy sant la ci ay jëfam buur nee na zaama jortu ladina alladina gaa yi nga xam ne kafaroo weddi nañu yàlla an lan yubaasu kenn du leen dekkal xul waxal yow bi balaa axakka yi wa rabbi gi ñaa ci sama boroom la tubaxasunna dinañu leen dekkal ëllëg yowmal qiyaam du ca yam summa la tunabba'unna topp danañu leen xamal bi ma ci li ngeen doon jëf wa dalika yàlla dekkal leen xamal li wa dalika ngi ñu dekkal leen ba pare xamal leen li ngeen doon jëf ala laay ci yàlla yasirun lu yomb kon fa aminoo gëm leen billaahi ci yàlla wa rasulihi ak yenentaan bi gëm leen yàlla gëm yeneen bi wa nuuri gëm leen leer gi nga xam ne moom la wàccee ci seen biir te mooy alquran alladi leer gi xam ni anzalnaa wàccee nañ ko te mooy alquran wallaahu yàlla xabirun aji xam la bi ma taamaluuna ci li ngeen di jëf bàyyi na loolu mi ngi wax bisu yoom qiyaam bis bi nga xam ni ñëppay teew ñëpp lay dajale budul bis bobu rek day am ñu tew am ñu wuute waaye yowmal xiyaam ñëppay teew buur nee na yowma yajmaakum bis bi nga xamni dañ lañu leen dajale li yowmil jami ñeel bisu dajalo ba raj raj lo ba moy yowmal xiyaam zalika bis bobu yowma taghabuni moy bisu naxante ba bis bobu kérok julli ñi daanu nax yéféri بدك سن كرين ورون دك الجنة بنيو قمون ومن يؤمن قم بلاي تي الله ويعمل مجف صالحا نباخ يكفر يالا ندنا بال انو تي موم سيئاته اي نياو تيفم ويدخلو يالا ندنا كو تابل جنات اي اجنا يو خامني تجري دنا داو من تحت اتي سوف اجنا الانهار اي دخ خالدين ني وي بيل موي سخ في اتبير اجنا جا ابدا فاو ذلك دوغ اجنا سخف الفوز موي غنياي العظيم برياجي ماغ باين واخو جولين ني كيناو بي مو نتلي تران يم لين دي جفال لغي نك مي وخ يفيري mu ni waaye wallazina gaa yi ni kafaroo weddi nañu wa kazzaboo ñu fenloo bi ayatina suñu alquran ji ñu ni du dëgg naan yonent bi azatirul awalina la feni mag ñu njëkk ña la ak ay njabar la mu ni ulaayika ñooñu di wax loolu ashaabu naari ñooñu ñooy waa safara xaalidina way sax lañu fiyaa ci biir safara wa bii sa bon na bii mu jiwaay ndem safara la yàllaa ngi wax ni dogal bu amee kenn indiwu ko ku dul man moo xam feebar la moo xam ñàkk la lépp lu am rek ci kaw suuf yàlla moo ko dogal yàgg na amul lenn lu nit mën a def lu dul loxo yàlla dafa nekk ci biir su ma nee loxo yàlla mooy kàttanu yàlla ak dogalam moo tax mu ni ma asaaba lépp loo xam ni jot na wala dal na min musibatin ci musiba illaa bi iznillaahi loolu amul ndare ci dogalu yàlla la amee wa man yumin ku gëm billaahi ci yalla su musiba amé nga dag nanguni yehdi, moko dogal koku de yahdi dana jubal mom yalla xalbo xolam pour mu mën a muñ yàlla fay ko ca balaa boobu wallaahu yàlla bi kulli shay'in ci lépp lu mënti doon alimun ku ko xam la de wa atiullaa topp leen yàlla ngeen jaamu ko wa atiu rasula ngeen topp yonent bu mu wan leen ngeen di jaamu yàlla fa in tawalaytum su ngeen dëddoo bañ a topp yàllaa ko yonentaam fa innama ala rasulina xamal ni warul suñu yonent dara waru ko ludul albalaaxu jotal almubiinu bu leer yonent bi li ko war rek mooy mu wax li ko yàlla yónni wax bu leer allaahu yàlla laa ilaaha amul benn buur boo xam ni jaamu ko dana jëriñ kenn tus ñàkk a jaamu di wàññi kenn tus illaa wa ku dul moom yàlla wa ala laay ci yàlla fal yatawakkali na wakkirlu almuminuuna ñu gëm de bàyyi na loolu mi ngi indi benn aaya yaa ayyuha alladina amanu inna min azwajikum wa awladikum aduwan lakum fahzaruhum aaya bi wax nañu mi ngi wàcc ci awf ibnu malik li tax mu wàcc ci awf ibnu malik ak yenn saxaaba yu mel ni ñoom bi yonent bi jógee màkka gàddaay di jëm madinatul munawwara dafa am ñoo xam ne bu ñu bëggee gàddaay rek seen jabar yi ñooy ñëw ni ah yow kër yi nga am fii xam nga ni boo demee madina doo ko fa am place yi nga am fii soo demee madinatul munawwara doo ko fa am alal ji nga fi am doo am nga fi gaday dem ñu tok ñi bu yonent bi takke xare bëgg dem sen doom yi ndaw yi jóg ak sen jabar yi bay bo demé xare bi ko ñi bàyyeel da ngay and ak yonent bi dem man nga dem ñu ray la nga ñu fi bu fi bàyyi ñu tok ci njabor ga di leen ñewanta ba far tok lolu dafa yaatu bari na ko xamni kilifa nga yenn say nga bëgg def lu baax sa soxna teel a def wala nga bëgg wax lu baax wala nga defal nit lu baax sa doom teel a defal lolu dafa yaatu ci kër kilifa yépp ni mu amon ci kër sahaba yi non la amé won moto yent yalla daoud alayhi salatu wassalam dafa daan ñaan ñent ni yalla yalla nga musal ci ñent ni ka ban ak ban mu ni yalla nga musal ci jabar jo xamni day dox sama digganteeg yow ba pare daf may teg lu ma mënul yàlla nag ma ci musal yàlla nag ma musal ci doom joo xam ni maa koy jur ba noppi mu delluwaat nekk sama kilifa lu ma bëgg a def ci lu baax mu dox sama digganteeg loola yilif ma ma ragal ko yàlla nag ma ci musal yàlla nag ma musal ci alal joo xam ni maa koy liggéey def ko ci compte banque yi duma ci tabax jàkka duma ci tabax daara duma ci dimbali nit ñi duma ci dem màkka duma ci génne azaka duma ci def dara loo xam ne yàlla def may gërëm ma dee bàyyi ko fi ñeneen doon ko di ko lekk ñu ma koy laaj ci sama biir bàmmeel yàlla nag ma musal ci boobu waaye yàlla nag ma musal ci dëkkandoo boo xam ni su xamee ci man lu ñaaw siiwal ko ba ñëpp jot ci waaye su xamee ci man lu rafet mun na bu ko dëgg ci tànkam ba kenn du ko xam kooku itam yàlla na ma ci musal moo tax buur ne yaa ayyuha allazina amanu e yéen gaa yi gëm min azwajikum am na lenn ci seen jabar yi wa awlaadikum ak seen doom yi aduwan ay noon lañ de lakkum ñeel leen fahzaruhum na ngeen leen moytu moytu leen leen ci xalaat yi leen di jox pour ngeen toog bañ a dem jihaad wala bañ a gàddaay wa in taafu su ngeen leen baalee nag bañ a teqalikoog ñoom ci wax boobu ñu leen wax wa tasfaxoo ngeen jélale wax bi wa taxfiroo ngeen jéggalu yàlla fa inna laa naka yàlla xafoorun ku mën a bale la raxiimun ku mën a yërmande la innama amwaalukum xam leen ni seen alal yi wa awlaadukum ak lenn ci seen doom yi fitnatun fitna rek la leen di jural yowmal qiyaam su ngeen ci deful li yàlla bëgg wallaahu yàlla indoo nekk na fa moom ajurun pay azimun bu màgg fattaqullaa ragal leen yàlla mastataatum lu ngeen attan aay bi wax nañu moo folli fii yàlla doon wax ni ittaqullaa xaqa tuqaati yaa ayyuha alladina amanu ittaqullaa xaqa tuqaati wala tamuutanna illaa wa antum muslimuuna aaya boobu wax nañu keroog bi mu wàccee yonent bi jàng ko saxaaba yi dafa am ñoo xam ne dañu wax ni dootuñu sëyeeg seen jabar ndax ittaqullaa xaqa tuqaati am ñu ni dootuñu nelaw guddi dañuy fanaane julli ba bët set am ñu ni dañuy woor dootuñu dog ndax xàq tuqaat yi maanaam dañuy dappetoo koor rek continuer yonent bi woo leen ba mu ñëw mun leen gënu leen maa ragal yàlla maa leen gën a ragal yàlla damay woor di dog damay naafila tëdd nelaw samay soxna itam dafa am xàq bu dox ma diggante ñoom dama leen koy jox bi mu waxee loolu rek xam nga yonent bi moom lu mu bëgg yàlla fekk ko si yàlla wàccee fattaqullaa mastataatum mooy fattaqullaa ragal leen yàlla mastataatum ni ngeen ko àttane waaye bu nee ragal leen yàlla ni ngeen ko mëne nag bul yaafus boo yaafusee nit nii laa ko mëne bu ko def nit nii laa ko mëne di ko defee noonu yàlla xam na ni nga ko mëne wa asma'u na ngeen dégg li leen yonent bi di digal ba pare na ngeen ko jëfe wa ati'u na ko topp na ngeen dépensé xayran li ngeen gën a bëgg li anfusikum ñeel seen bopp dañ bëgg sooy joxe nga joxe li nga gën a bëgg ci sa alal buur nee na wa man yuqa shuxa nafsihi koo xam ni teet na teetal na boppam ba nayul ci alal ji génnee li mu gën a bëgg joxe ko fa ulaayika ñooñu hum ñoom almuflixuuna ñooy ñu texe ñi xam ne seen alal dañ ciy génnee azaka ñooñu ñoo ñu taxe bàyyi na loolu indi na boo xam ne in tuxridullaha xardan xasanan yudaa'ifu lakum yàlla nee na su ngeen lebalee yàlla bor bu rafet yàlla nee na leen ko fay te buma len koy fay ben ngeen may jox ma jox len fuk ba juróom-ñaar fuk ba juróom-ñaar témèr ba ma ful ba lu ko ëpp manam dépenser sa alal ci walu yalla lay wax fi wala dépenser rek ci walu yalla man na baña doon alal ndax dépenser ci walu yalla ñent lay nekk bu ñëk bi moy xam-xam bu bi moy alal bu ñetteel bi mooy xel wu rafet bu ñeenteel bi mooy kàttan ñeenti yi la islaam soxla soo amee xam-xam nee na oustaz Mouhamadinil Mansour Fall joxe ko ngir jëmi yàlla soo amee alal dimbalee nit ñi ngir gëmi yàlla soo amee xel mu set mu sell jox ko nit ñi ngir gëmu yàlla soo amee kàttan tamit def ko ngir jëmi yàlla loolu la wax tuxridullaha xardan xasanan mooy kuy def njëkk koo xam ne day génne azaka ba pare la yàlla def jox mu ci saraxewaat moo tax buur ne in allah yàlla xardan xasanan bor bu rafet yu daaifu yàlla dina ko ful lakum ñee mooy di koy multiplier ba mu bare wa yaxfir lakum yalla dana len djegal lu ko pour mu djegal len ko wallahu yalla shakurun aji sant la bay fay ku ko halimun aji lewat la lewatu yàlla nag mooy dënniirlu moy ñi nga xamni top topp ñu ko ci aduna dafa lewat ci ñom waye bu yowmal qiyamah halim du tuddu halim muntaxim lay tuddu muntakim moy ki nga xamni li nga ko defon da koy ko wat motax mu ni wallahu yalla shakurun ku sant la ñi koy jaamu ci ëllëg yowmal xiyaam dana leen fay xalimun ku muñal ku deniiru la pour mbugal ñi nga xam ne ñoo koy mooy nee yàlla boo ko bëggee xam aalimul xaybi yàlla moo xam li fàddu mooy li ñëwagul kenn xamu ko yàlla rek moo ko xam ak li nëbbu wa shahaadati ak li feeñ al azizu yàlla mooy aji not ci nguuram gi al xakimu yàlla mooy aji xarañ ba mbir mu nekk ni mu yàlla tëdd wala ni mu war tëdd rek noonu la ko yàlla di tërale صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا مولانا ورسولنا من اللهم بلغ ما قرانا ونور على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بقي لمن يكون سن تفسير القران في تزاويه امام الشيخ الحاج عمر الفوتي عندك سن Omar الاستاذ Fouti سله ak seen mbokk daara Oustaz Pape ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla defal ñu dégg ak topp ba ëllëg ci jàmm incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu